wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat wasalliyan alayhi abdana salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara fanajjini waghfir lahu ginnaaw bi ñu tegee xeer wi fii ci Touba Lansar ci diirum at waa Touba ca kanam amati nañu ndam poste de santé Touba Lansar yemb na sëriñ Abibou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal dem ci sëriñ Muntaxa mi nga xam ne tey moo fi jëmmi sëriñ Touba leeral ko na ko xeer wa nga tegoon ci diiru at liggéey bu noppi na sëriñ Muntaxa fas yéenee ñëw léemu si ko waaye it ñaanal mboolem koo xam ne rek jàpp nga ci liggéeyu Touba ca kanam bi. ci biir loolu nag waa Touba Lansar gépp am ci mbégte lool ba kenn ku ci nekk yitte joo amoon bàyyi nga ko ngir fas yéenee ñëw. fexe ba bërëb bi set ba bu sëñ bi agsee mën see dugg mën a xool lépp ñaan fi ba liggéey yi nga xam ne tuubaa ca kanam sumb na ko te bii di ci benn mu des yeneen ñett yoo xam ne yu mel nii la mën a àgg ci jàmm ak salaam wajalilaayi maskani maskani tuubaabaat مثل اسمها بجاه خير من نبات وسليا علي عبد الصلاة di laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam jërëjëfe Serigne Touba mbokk yi post de santé Touba ca kanam Lansar mu ngi nii ñàkk murid rekk ñoo ko def Touba ca kanam ginnaaw bi mu wootee murid bu nekk yaakaar Serigne Touba te bokk ak sëñ Abibullahi benn pas-pas weer wu jot nga yëkkati ñaar téeméer daf ko àddee sëñ Touba mbokk yi lenn ci liggéey Touba ca kanam moo nekk nii فلتكفني عسى جميع العالمين ولتقضي مسايا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بنائي بنا علمين وعمل بسنة وعلم واجعل بنائي بناء الاعتداء والتف عني كيد كل ذي اعتداء bi ñu xëyee ci altine ji mboolem ñi dëkk Lansar ak waa Touba ca kanam ak njaboot sëriñ Touba gépp ñëw fas yéene gàttanu si gan gu tedd gi gan gu màgg gi di Serigne Mountakha Mbacké xalif général des murit ni mu ko waxee woon ne mu altine dinaa ñëw léemu ko ñaan fi sëñ bi agsi na Serigne Abibulahi Mbacké teeru ko ak njaboot Sëñ Tuubaa gépp leeral ko liggéey bi sëñ bi bëgg ci lool ñaan ci waaye nag yëkkati ci ay kàddu yoo xam ne kàddu soññee yu am solo la ومن ملال بما إن جارين وجل ربي مننا معجلا جالبا مننا مؤجلا يا حي يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والخريب إليك وعدك فررت من سواك فكن بساك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا والنصير ولي جميع المسلمين يا بصير وكسر الخيرات يا صاحب الذي ورزقه والتكفي عنك دين ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا عكيم ونجنا من سر هذا السمن وسر خيره وكل فتن والتقنا سر نزار واليوم وسر إليس وكل سجود والجل والدجال في سوداني في زرق والمغرب والبيداني daayira bii tudd Touba ca kanam te nga jiitu ci membre yi nga xam ne yaa ci njëkk a bind sa jëf njëkk cee dem bi dañoo bëgg a defar këru fajukaay defal ko Serigne Touba la leen Serigne Touba dimbalee mooy penc mi ñu ñëw nga xam ne boroom mooy borom soori dan abadan kon day mel ne bi nga ñëwee di teg si xeer wi rek la leen yàlla gàttandoo ak ndimbalul boppam ak ngërëmam nga boole ci sa jëf ju rëy loolu leen denc liggéey boobu nag la wax ne moo toll ci nopp ñu war laa jébbal si caabi ji la mu la waxoon suñu la jébbalee caabi yi ni ñu jébbalee suñ jëmm yi nee na noppi nañ ca xamatuñ loo cay def wala koo koy santaane ñoom daal tabax rek leen ci waroon bu noppee ñu teg sa liggéey bi nag dafa am ñu mu ko seqaloon ak lu ci am lu mu la bëgg a leeral tuuti rek ndax nee na nit ñi boo nee ci seen kanam di leen laaj seen alal war nga leen di wan fa nga leen koy defal su noppee it nga leeral leen la nga leen joxoon lañ la joxoon nam toll ak la nga ca def fu mu toll ndax firnde dafa baax ci mbir nee moo tax bâtiment bii liggéey bi lépp bañ ko tàmbalee jot ci terrain bi te waa kër Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba jox leen nee na ñi ngi lay seereel cantu njabootu Sëriñ Bassirou Sarr gépp di la seereel cantu njabootu maam Cheikh Rahma Fall ndax fuñ gestu gis leen la ko tàmbalee ci sëñ Fallou ak yi ak ñi bokkal sëñ Cheikh Ibrahima Fall yëpp. nee diggante ba ñu tàmbalee maasale suuf si ba ni ñu ko pentiree ba noppi ci lépp nee na toll na ci téeméeri million ak fanweeri million ak juróom ñu tegal téeméeri junni ak ñeenti junni ak ñaar yu tegal ñeent fukki juróom fukki dërëm ak ñeent nee na loolu mooy li ci dem ci liggéeyu xaalis muy cent trente cinq sept cinq millions sept cent quarante cinq mille cent soixante dix sept waaye nee ci biir xaalis boobu itam mbooleem këyit wum ci masa jaarale nga xam ne facture la nee na day ñëw jébbalaat la ko ndax yow dañ ko doon liggéeyal facture yëpp a ngi bu dee mbuusum ndox lañ si jënd sax bind nañ ko ci facture ndax nee na day xam ne ne dërëm bu tàbbi ci Touba ci kanam moom néew bu dugg Touba ñoo yem waratu koo génn nee na ndoxum naan sax duñ ko ci jënd nee na facture yëpp a ngi nii su la neexee nga yóbbaale ko jël somme bi total lu ci manqué nga woon ñu delloo la ko ndax yow dañ doon liggéeyal. nee na nag lii dafa baax ci ab liggéey nee na it bi ci dem bi tabax yi noppee matériel fañukaay yi ab taalibe moo ko ànd ak ñoom def na ci wëlooru ñaar téeméeri million ak juróom-ñaar fukki million ak benn million. matériel bii nga xam ne mooy lal yi ak masin yi ak yi war a àndal yëpp tollu woon na ci ñaar téeméeri million ak juróom-ñaar fukki ak benn boole nañ ci ab ambulance boo xam ne dañ koy boole poste de santé bi jox ko fii liggéey nee na loolu xam nañ ne xajutoon ci bâtiment ci poste de santé bi waaye boo séddale nañ ci lenn ci hôpital yi nekk Touba tegoon ko ci loxoy docteur Soron ngir mu la fa manqué ñu mën leen waaye nee na bu loolu lépp jàllee na ñun dañ doon def rek di dàq sa bëgg yàlla nañ dajeeg moom. ndax lu waay a def te dañuy wut ak sa bëgg na ko kon nag dañ doon dàq sa ngi ñaan yàlla daje ca ak moom caabi yaa ngi nii këyit yaa ngi nii palaa nii caabi oto baa nga nee. nee na di nag sant bu baax a baax a baax. nee di gën a am yaakaar ju mag sëkk nee na amul benn yitte bu dul sëriñ bi ak liggéeyal ko rek ca na mu gën a amee njariñ ci wàll yépp nee na loolu rekk mooy yitteem nee na loolu nag nee na mel na ne gàttandu nañ ñu ci yéenay sëriñ Habibu ji ak pasteefam bii ak yitte ji li nga xam ne moo doon ay mébétam yépp mooy téyal sëriñ bi liggéeyam bii nanu ko war di ñaan ñu tolloog loola ñu tolloog loola ñu tolloog ñu liggéey bi ñu tolloo ak liggéey bi tàmbalee ko ci ñun ñii fi teew ak ña nuy wuutu ak ña leen bi na ma ko waxe woon rek am yitte yi. nañu am yitte yi. bu mu laal suuf bu mu laal jëm kanam nay jëm kaw ba bis penc ba bis penc li tax nag ñu téye ko noonu. li tax nag ñu téye ko noonu. di ko yëkkatee noonu. di ko yëkkatee noonu. benn jën jën benn baat bi rek la. benn baat bi rek la. mooy yëkkati baatu sunu borom. mooy yëkkati rek baatu sunu borom. la waraloon badal. la waraloon badal. waral Uhud. waral Uhud. waral Xunayn. waral Xunayn. waral Fatxu Makka. waral Fatxu Makka. loola képp. loola képp. ci ci. loola la ko yëkk la jóg la jóg la taxoon loola jóg. la taxoon loola jóg. liggéey sëñ Tuubaa loolu rek moo ko tax a jóg. loolu képp ñu xam ko kon ñun ñëpp ñu xam ko noonu. baax nañ góorgóorlu bu baax. li ma doon xalaat yëpp. nee na li mu doon xalaat yëpp. ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma gën xalaat. ñi ko gën xalaat. ñëpp ñëpp. lii lekk lañu moom mooy seen yitte. lii képp képp moo doon seen yitte. moo di moo di moo di njabootu sëñ Tuubaa bi. moo di njabootu sëñ Tuubaa bi. ñu xamal seen bopp sëñ Tuubaa. xamal seen bopp sëñ Tuubaa. jublu sëriñ Tuubaa. jublu sëñ Tuubaa. def ci seen lépp. def ci seen lépp. ba ba liggéeyam bi. ba liggéeyam bi. waxtu wu ne. waxtu wu ne. ko taaw. ñu di ko taaw. nañ ko war a taawoo. nañu ko war a taawoo. loolu rek mooy yitte ji. loolu képp mooy yitte ji. nee na loolu alhamdulilah rabil alamin. bi taxawaayu sëriñ Abibu bi ak ñi mu ko àndal. dalal na ci bu baax. nee na dalal na ci xelam bu baax. amatu ci amatu ci sax benn xalaat. noonu mu war a demee noonu mu war a lii tax na lii tax na. am nañ yàqin ci ne. am nañ yàqin ci ne. noonu rek lay demee. noonu rek di wéy di ba bis penc ba. alhamdulilah suñu xol sedd na. nee na kon xolom sedd na. xelam dal na. na. di wéy di wéy yaakaar. suñu yaakaar. rëy na mat na sëkk. ci taxawaay bi ci kon nag. kon nag. li ñuy ñaan rek. li ñuy ñaan rek. mooy. gàttanduk sëriñ bi rek. sëriñ bi rek. nanu sëriñ bi gàttandu. sunu borom di ñu gàtt gën a gàttandu ak tawféexi sëriñ bi ak tawféexi sëriñ bi. yëpp yàlla sàmm njaboot gi yëpp may leen wér may leen wér may leen kattan may leen kattan goo xam ne goo xam ne ci la ñuy mën a gën a mën a nekk ci seen yéene jure ji ci la ñuy gën a mën a nekk ci seen yéene jure ji ci la ñuy mën a gën àggale seen posture ci la ñuy gën a mën a àggale seen posture ci la ñuy gën a mën a àggale seen yitte nee na loolu rek lay ñaan. yàlla sàmm leen aar leen. bàyyi leen fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg. ñu ànd ak wér ak kàttan. guñ gën a mën a nekk ci liggéey bi. guñ gën a mën a nekk ci liggéey bi nag. gën cee mën a àggali seen yéen. gën mën a àggali seen yéen. nee na loolu rek moo di am ñaanam. jërëjëf Mbacke. liggéey bii moom. nee na liggéey bii moom. keroog ba sëriñ Habib bu ñëwee fa moom. wax ma ni mu demee. wax ko ni mu demee. ak ni ma xamee sëriñ Habib. ak ni mu xamee sëñ Abibu. booba laa xamoon ne. booba laa xamoon ne. kanam rek dana dana dana tàmbali. dana tàmbali te kanam rek lay jëm. te kanam rek lay jëm. fu ngeen da ngeen fa àgg. te fépp fu ngeen jàpp ne da ngeen fa àgg. attanu ma dana leen fay dana leen dana leen xëcc. nee ba ngeen ba ngeen gën a kawe. nee na gàttandu mi danañ danañu xëcc bañ gën a kawe. ba ngeen gën ko mën a àggale. bañ gën koo mën a àggale. fan ko bëggee mën a ca dana ca daal di bokk keroog. nee na loolu moo tax keroog rek mu daal di cay bokk ak nam ca bokkee. fas yéene ci ànd ak ànd ak ànd ak yéen rek. fas yéene ànd ak ñun rek. maa ngi nooy incha allah. nee na fii mi ngi nooy incha allah. yàgg lool ci lépp nag. lépp lu ngeen doxee rek. lépp lu ñu doxee. ànd na ko ñun. jërëjëf. mi ngi jégalu kàddu yi rek. nee na mi ngi jégalu kàddu yi rek. teraanga ci boppam. teraanga ci boppam. nee na du ak bëri. ay bët rek la. yaa moom lépp kum doyut nee na yaa moom lépp kum doyut dara doyutu la dara doyutu la sëñ Fallou daa waxoon ne sëñ Fallou daa waxoon ne as gor as gor as gor ak la ak baadoo leen tàqale yaara leen tàqale as gor boo ko defee teraanga as boo ko defee teraanga day sant ba ñëpp dégg na sant na la day sant ba ñëpp dégg na sant na la mu bàyyi la yàlla mi la bind mu fay la mu bàyyi la nag ak yàlla mi la bind mu fay la baadoo la loo ko defee ci teraanga baadoo la nag loo ko defee ci teraanga day yori gët day yori lex xonqali gët na maa ko yeyoo mbàkke lii nga ñu defal ndax mbàkke lii nga ñu defal jërëjëf jëf jërëjëf jërëjëf bu ñu xamoon lu ko weesu rek nee na bu ko xamoon lu ko weesu dañu ko def daañu la ko defal waaye nee mu ngi lay seeral ne mboolem ku bokk Touba ci kanam lépp luñ ko nar a jox moom mii lépp luñ ko nar a jox moom mii nañ leen ko jox nañ leen ko jox man su ma amee des baax na nee na buñ desee boo buñ deselee baax na buñ deseelu buñ ko joxee ma li ma ni ñu ko waxee léegi rek buntu kër sëñ Tuubaa yëpp teew nañ buntu kër sëñ teew nañ seexi sëñ Tuubaa yi teew bokki sëñ Tuubaa yi teew nañ bokki sëñ Tuubaa yi teew loolu nag mooy mooy yoon rek loolu nag mooy yoon kenn ku ne def ci loo man ak loo mën kenn ku ne def nga ci loo man ak loo mën daa bëgg nag liggéey bii daa bëgg nag liggéey bii mu mel nii rek Mbàkke mu mel nii rek Mbàkke ndax dama ci jaayante sëñ Tuubaa ndax da cee jaayante ak sëñ Tuubaa bëgg nga ñaanal ma ci nag bëgg nga ñaanal ko ci nag seytaan du ma ci yàqal mukk fas na yéene du la ci yàqal mukk ba seytaan du ci man ba seytaan it du ko ci mën a yàqal mukk léegi dañ maa indi bitéelu ndox léegi dañ ko indil bitéelu ndox ñu mu ne leen fu ngeen jëlee ndox mi ci ndox maanaam ci xaalisu Touba Ca Kanam ñu ñu ne ko dañ koo jënd ci xaalisu Touba Ca Kanam moo na moom foofu la nekk Mbacke nga noo ko bëggee nee na noo ko fekk lu ko sa njort wajalilaay maskani Touba misras mi abi jaayi xayri ma nabaat wajal ilaahi